gifted and Safi. Ramadan Mubarak, Holy Records. Ramadan Mubarak, يا شهرة رحمة وريح بك يا شهر رمضان بك ورجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قرب Jangan nak anda. Ya, karena antren mana jom? Tapi jom antren mana? waaw mais bëggoon naa nga dóor ma dix kaasu café. dix kaasu café. waaye. ana xaalis bi. yow yëgoo ne damaa am contrat te papa bëgg moom moo yore lépp. mais papa bëgg moo ko yor mais man tey ci suba ba tey damaa wër di jaay ñi ma daan jaay tuxkat yeeg ñëpp tey xam naa dama woor tey moom wóoru gàlle amul. moom mooy fay lépp moo ko jël en sant lépp moo koy fay. moo koy fay. loolu waxtaan nañ ci ba dee. indi ma indi indi fi ma la koy defal discuss. amul benn problème Baye Bargaale Bargaale cey lamb de mom. dama koy beure ba wéru kor jot nga mëna a xaj sa saison Rafa na sa kan nag ma la koy yóbbu non ma la jëm ka gaay dem ñaan ma ñaan ma ma top laa man ko yeen affaire yi li ngeen koy bol ak sama bari na non gaamaa ngi mo tax day e toj ñaan Euh, saabu day toj gàllaaj saabu day toj gàllaaj soobee la est-ce que xam nga ne tilim tamit day toj gàllaaj de da koy yokk da lay gën a xeliloo nga nekk si combat bi da lay gën a xeliloo nga nekk si combat bi mbër bien sangu bokk na ci jaamu yàlla baa faam nattal ma rek damay dem entraînement wax ñu bëri ñu talu ma ko mi ngoog waaw mi ngoog léegi bu papa bëgg ñëwee rek nga jëflante amul benn problème man kay naa ko jëf faal waay naa ko lijjanti wala ñoo na di ànd di ànd ak man di tàngal sa yaram da ci baax ñun ban juddoo lan tàngal suñu yaram xëy na xëy na xëy na pokkataan yoo xam imam imam imam imam am na yoo xam ne yéen a koy seetaan te baaxul imam imam wax lii nag mbëri imam mbëri tilim nañ de imam daf bokk ndax ñom ñom ñu ci bari dama leen di dégg fiñ tek seen lamb ji mooy yonent bi musna naa lool la nuy wax imam lool lan la bëgg na nga tekkil ma lool leen di xamal na la ko. Mm. ceeb mom do am solo la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne. Mm. an nasafatu min al iman. ceeb dafa bokk ci ngëm yalla waaw te ñom li ma ci gëna metti moy seen bëre bi liñ ciy toftalantoo moy yonent bi musna naa lool loolu la ñuy toftantoo. gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp lu ñu la wax ne yonent bi moo ko def wala moo ko wax yàllaa ko ko def loolu moo ko wax loolu wa maa yantiqu anil hawa in huwa illaa wahyun yuuhaa hmm. gis nga ko def mukki bànneexu bakkan déedéet sallallahu alayhi wa sallam euh, Baye Fall hmm. nañ sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin sëñ Touba hmm. amul moom déedéet waaye maam jaare waaye maam jaare kenn du wallaay ndax wala tax lu yëngu lu ne la ko yëngal la ko ëpp doole borom Touba fanweeri at ak ñett la dund fukkeet ak juróom mu mokkal alxuraan sëy ñu yebal ko kër Maam Mor Anta Sali mu nekk ba fukki at ak juróom liggéey fa liggéey bu am solo boobu xam nga ne jigéen ju mel noonu hmm. mooy jur ku mel ni sëñ Tuubaa maa la ko wax de nañ wut royukaay bu baax a baax ah. maam jaara bu suf faa wàdd wele yaayu nday maam alaaji dogal ci lii bu dog dote jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf nday faa wàdd wele hmm. soxna Kumba Ndooy ma maam li maamu laay maam Assa Diank yaayu Baye. soxna Daba Ndiaye yaayu Sëñ Babacar soxna Awa Diakhaté soxna Awa Bousso ñooñu ñëpp ay doomu Sénégal lañ ci réew yi suuf si lañ doon dox jant bi moo doon leen dee xoolal jëf ju rafet jëm jëf ñu ne Sénégal man li ma gën a jaaxal mooy jigéen ñëpp jigéen ñëpp ñoom weeru koor rek lañ war a muur waaye fii. waaw alxuraan ko digle. loo ci gis. ay buutu maam. fàq maam bëgg. daanaka bëgg wuy ma. yow laa doon xaaraale sax. waaw. Euh, pour nga jox ma quoi. jox ma euh, café bi. dama dama da ngaa da ngaa dugal dinañ café yi moom. déedéet sama xaalisu café. xaalisu café. waaw. bëgg yaay bul dof dof lu waay. bul dof dof lu jox ma sama téeméer nag. damaa yaakaar man kay dof dof lu mais yow kay laa foon gis nga Baye Fall. wuy ma damaa seeti woon Bakary dafa fekkuma ko ba naaj bi tàng na. bëgg du n'est-ce seen affaire boobu ci biir ngeen ne yee yaay mbër la. ban affaire. lii fanaan fii. kat mbër. waaw jël na dix kaasu café. nee na yow yaay fay. kan yaa ko ko wax kan moo koy fay. yow mii xanaa mbër eh mbër. Eh, mbër génn na dem. eh eh. mooy eh, eh. yow. eh ma ne ma ne. bër génn da ngay ma fiche je m'en fiche ok Baye Fall mais yow imam eh, imam non mais imam li mooy sa problème ah, imam bako damay nangu café gi de non mais ma am nga seede ah yow bi ngay wax ak bër fii waaw kay naan ko yow yaa ko wax te góor nag bu xasee wax moomatul kàddu imam dafa nag imam yaa ko wax fii imam dafa nag mbaa bi nga rombee fii eh, tombee ñu taxaw fee di wax ma ne ma waxuñu dara li ma ko wax mooy que ni mbër booy entraîné na ngay lekk lu baax di naan lu tegee ci buntu bàmmeel ci buntu jàkk ji dañuy laaj kan la yoreel bor. kan ko garanti kenn du la. imam man maa doon xaarante ci buntu bàmmeel bi ba xool gis nga lim jéem gis nga lim mu génn ni. may ma rek bàyyi tax na. ooy ma fa kama mu tuddaal atte bor moo di fay yeneen nga fay moo gën maa dul sax ba yegg ci buntu jàkk bi dal may fay. déggoo ma de samay téeméer. dog ko téeméeram. dinaa la fay mais ah. Imaam defal naa c'est que lii moo amul. xoolal loolu yëpp waxuma ko sama téeméer. fa commenté nañu tuddaan ate bor fay. yi moo gën. léegi nag Imaam. waaw ñi nga xam ne nag dañuy topp alali jàmbur di lekk ci lu dëgg. ba pare du loolu lu ci diin diina wax. waaw ak di jaay nit ñi doole loolu daganul ñu tey daganul waaye lépp boru jàmbur ne doo ko ah. fay daganul. ma ne yow it lan la diine wax diine lan la wax ci carrément koo xam ne day génn ci mbedd mi murit murit te du murit la day nekk ci mbedd mi yalwaan. loolu yëpp jaaduwul voilà. waaw kan loo ci bëgg bay bay fal. yaa ko moom loo ci bëgg. bëgg tey ngaa dem malay man faalewu ma ne. nga ne lan. faalewu ma ne bay fal bay fal. bay wax ji jeex na de. bay boppam nga noonu. waaw man jiw baax na. waaye waaw baax na. ma xool si café gi ma la joxoon. du yow yaa ma jox léegi café gi dinaa ko ndóobo. waaw damay xool damay xool ba xam bu tàng bi la. est ce xam nga lu yàlla wax ci lii jël benn doomu tàndarma wala benn kaasu café. Hmm. nga jox ko nit mu ndogoo ko. mel na ni yow mi ko ko jox am nga woor weer. Hmm. comme jaralu la ko la sa café ko noonu. continué woor. loolu rabbi bika ruuxi wa qalbi qadasa ramadan mubarak